njiitu réew mi di amal discours am bu mujj Macky Sall nag sénégalais di ko xaarandi bu ñu sukkandikoo ci ñenn ñi nag wàllum politique lañ koy gën a xaar ndaxte ñaari weer képp ñoo daal di des ñu daal di dem ci jongante wante nag langue politique bi dafa am ay gàkk-gàkk. discours bi de amul leen luñ ciy xaarandi ko discours bi daal na organiser élection yu normal ñu war a bokk bokk loolu laa koy wax amul lenn moom moo fi waxoon décision lu justice dañ koy rester à la loi. njàng meek njàngale mi pour ñeneen ñi ci jamono ji nga xamante ne nag coow lu bëri euh, moo ci daal di fës. am na ñoo xam ne amuñ fuñ logé te ñu ngi nii di def examen. am na loo xam ne tamit euh, on peut pas dire que c'est l'état doit le faire mais il y a des choses sérieusement état bi moo ti mun a wax mu mun a am. ci bile doomu réew nag gis-gis bu gën a yaala am ci jamono ji nga xamante ne nag koomu Sénégal loof la daal di def bu ñu sukkandikoo ci moom nag njiitalu réew mi président de la république Macky Sall dafa war a waxtaanee yile. la paix sociale qu'on peut si jàmm la lépp xëj dañoo war a jàppale ndaw ñi ndax ñu mën a am liggéey ci jamono ji ñu nekk jàmm moo gën lépp sécurité mu ngi tegu ci am lu ngay dundee sa bopp am liggéey am logement. waaye itam wér gu yaram. aussi du côté la santé aussi. njiitalu réew mi di amal discours bu mujj 31 décembre bu juróom-ñetti waxtu ci ngoon jote ngir daal di tàggatoo. ca na mu waree faw nag discours bu muy amal mu daal di ciy sof woote booloo itam dundal yaakaar bu ñu sukkandikoo ci ñi ñu taataan seen